yàlla def mu jël doomam bii tey waaye lu jiitu loolu bi muy ganee àddina mu ngi ganee àddina ci dëkk bu ñuy wax caar caar pël ci soxna su ñuy wax soxna Aminatu Sow pour yéen jigéen ñi ngeen xam li ma jëkk a wax ne lu baax lu ne yéen a ko meññ wax nañ ne bi bi soxna si muccee muy doom bu góor ñu ñëw yëgal ko góor gi ni ko soxna Aminatu So mucc na am na doom bu góor mu ne ah bu kooku de mooy wéttali Louga ëllëg xol nga mu ne kooku de wallahi bu ñëwee Louga Louga wéttali ko Louga dafa wét lool waaye bu kooku juddu tey bu ñëwee Louga rek Louga wéttali ko bi mu nga nee àddina ci saa si la ko wax xam nga kon wali yu ma ne baatin ak bëti neen du benn wali yi wax xam nañ ko te jamono du leen weddi mukk jamono di dox ba góor gi muy Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Umar war a dal jàng góor gi may wax di Muxtaar Sugu Fara doon xaritu Cerno Muntaga doon wëllëreem ndax xam-xam bu góor gi gisoon ci moom téye ko fonk ko mu ne ko Bachiru mii day maa ko war a jàngal waaye teg naa ko ci sa loxo na mokkal alxuraan na am xam-xam na bari xam-xam li ma bëggoon ci moom yépp man def naa ko ci yow yow defal ma ko ci moom kon moom lantinoor la rek du téye diw lantinoor du téye diw mukk ci xàndi ba rek la jëm góor gi ne ko insha allah waaye ku ne xam na nitu daara du toog day bari itte te daara dafa xumb mu jël jigéenam bu mbokkal ndey ak baay jox ko Cerno Bachir ndax jigéen ba it boroom xam-xam la woon xam nga naar yi ngay gis góor ak jigéen ah, waaye yow man du ma waxantu yow tam nit ñi kañ léeg-léeg ñoo naan kii léeg-léeg am na Abdou Latif Guèye daf ma ko daan wax mu ne ma waaw ñaata at nga am ma ne ko xaw ma waaw ndax yal na ko yàlla yërëm nit bu la ñoree da nga koy xam nit bu la ñoree danga koy xam lii ma wax nii ci Thierno Bachir wallahi wa sharafil quran yàlla rek a tax may wax amul mag moo may laaj ci Sénégal te mënuma la wax ci moom amul ndax man ñoom rek lay gistu soxlawuma leneen ndax ñooy xam-xam ñooy alal ñooy àddina ñooy àllaaxira ñooy teraanga mag ñi ku bëgg a teraanga rek dawal jëm ci ñoom te mag moo ci xam di jëriñu mag mu mën a doon du dégg léegi ma tudd fi sëñ Touba fii jotaayu tiijaan la kon lu fi indi sëñ Touba waaye wax bu rafet la bu ma car na yaxyaa li nettali ma wax ko fii pour mu jëriñ te kii ñuy waxtaane rassembleur la day dajale muy Cerno Bachiru ñépp xam nañ ne day dajale te dina ñëw ci biir waxtaan wi yàlla dogal nag soxna soosu bi nga xam ne mooy jigéenu maxtaar muxtaar sugg fara moo yore Cerno Bachir dalal ko di ko jàngal alquran ba mokkal alquran ci loxoom bi mokkalee alquran góor gi muxtaar sugg fara di dem muritani yóbbaale Cerno Bachir boobu góor gaa ngi dund xam nga dara gënul metti di peren putentaan bu ndaw ñu xonc la ci sa ndey xoñci la ci sa baay yóbbu la frontière ak frontière góor gi maxtaar sugu yóbbu ko Mauritanie nekk fa ak moom jàngal ko bépp xeetu xam-xam boo xam ne rek baayam soxla woon na ko ci moom mu jàngal ko fa la nekk ak moom ba 1957 bi nga xamee ne góor gi mu ngi waaj a dem mu ñëw di ko seet si ci feebar bi indaale Cerno Bachiru bi mu indee Cerno Bachiru ñii ne nañ dellu na ñii ne nañ delluwul góor gi génn àddina ci at boobule 1957 waaw kañ taal taal bismillah tafaddal taal kañ ñu ngi lay ziar bu baax taal taal taal yàlla dogal biñ toogee ci dëj période dëj bi damay tënk rek ndax léegi waxtu wi jot biñ tolloo ci période dëj bi ab diir gannaaw bi góor gi di dem muy Cerno Muntaga baax Cheikh Umar dafa jëloon lëpp teg ko ci loxol Cerno Saidu Nuuru ibnu Nuuru ibnu Cheikh Al Umar ne képp koo xam ne bëgg nga ci man dara wala nga soxla woon ci man dara wala nga doon ut ci man dara te jotoo ko sonnee am ci man soo yeboo jublul ci Cerno Saidu Nuuru su la ko joxut doo ko am li ma amoon yépp jël naa ko takk ko def ko ci mbuus yeew ko jox ko Cerno Saydu Nuur gannaaw ci dundam la dënkoon Cerno Saydu Nuuru Cerno Bashiru bi dëj bi raafee Cerno Saydu Nuuru woowaat góor gi Moxtaar ne Cerno Bashir dalal di fabu rek yow moom doo koy toog demal nga mottali ci sa àlluwa bi mu delloo gànnaar ba ñibbisi nag ci la jël kii 1957 la jël cerno Cheikh Umar Ba bii bokk ak yaayam ndey ak bàyyi yaayam di magi cerno Bachiru mu namp jox cerno Bachiru fekk moom boobale mu baal ma ci wax ji at yi bariwul xëy na ñaar jëm jëm jëm yooyu la cerno Bachiroo ko boot yóbbaale ko Mali ba muy jàngi moom mi boot boot xam ngeen boot waaw ndongo luy jàngi déet moom it dara la di waxuma waxuma Thierno Bachir waaye moom mii kañ laa ñee man moom mii waaw man dama ne déglu leen xool leen jëf ji kuñ yebal pour nga jàngi looy jëlee koy boot di yóbbaale ah man de sama doom ba ma ko yóbbu ci daara ja da doon jooy sax moom wax dëgg yàlla bañ a dem doonte mokkal na nag fi mu ne mokkal na bu yàgg alxuraan waaye jooy na ba lank tëdd ci naaj ma ne ko dem rek waaye yow ñu ne la demal nga jàngi nga fekk sa doomu sër boo bokkal ndey ak baay di perental matagul sax dal nga boot ko yóbbaale responsabilité lay firi dafay firi ne moom jël na responsabilité njaboot gi yépp boot ko loolay wax bi xaqiqatan loolay wax ci won leen ne su ma demee ba yegg bu ma delsiwaatee li ma bootoon bu ma ko yennee ko ñépp xaj nañ ci <laughs> ramzu la nitu yàlla lu mu def ramzu la minal rumuz symbole la ci symbole yi nitu yàlla lu mu def rek symbole la lu tax ma jox leen ci benn exemple pour ngeen mën pour ñu man koo dégg xam nga ba ban exemple laa ciy joxe Cerno Pape Pape Ngom laay wax nag comme moom moom sama kii la yéen taal yi ñemewuma leen wax ndax samay sang ngeen samay sëriñ ngeen waaye Cerno Pape amadu Ngom bii laay wax Cerno Pape Ngom waaw sëriñ Pape waaw kañ li ma lay wax mooy lu tax yàlla teg malaaka yépp ne leen usjudu li aadama ñu lànk yàlla laaj leen ne leen lu tax ngeen lànk ñu ne ko dañ xam ne kii nga nañu ñuy sujjuutal ko mooy tuurkatub deret bi ëllëg mooy reykatu nit bi ëllëg pourtant la ma waxoon yépp dëgg la de Sénégal rey gaa ngi nii xus fi mu du dëgg mu ne ko kii nga ñu jëndee jaru ko defalagu la fi dara lu jar ñu sujjuutal ko ba nga naan usjudu di aadama moom xëyalagu la fen gontalagu la fen defalagu la dara nga ne nañ ko sujjuutal ñun ni nahnu nusabbihu bi hamdika malaaka yi seen xol a jeex bi nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka yàlla ne leen teey leen qaala inni aalamu ma la taalamuun man kat xam naa lu ngeen xamut ndax maa leen bind wa allama al aadama asmaa kullaha summa aradahum ala almalaikati fa qaala anbiuuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin du loolu la wax asmaa yooyu lan la woon nañ dem ci tafasir yi demal ci ruuxul bayaan wala ci xaasiyatu eh, saawi ala tafsir il jalalayni wala tafsir bu mu mën a doon dem ca asmaa yooyu lan la woon leket ca la bokkoon kuddu ca la bokkoon kaas ca la bokkoon ah mbàttu ca la bokkoon asma yooyu la tegoon de waaye du turu yàlla de asma yooyu ngay dégg newloon turu yàlla waaye asma yooyu ngay dégg nag mu tegaloon ko ramzu bañ am ca xadara ba moo taxoon yàlla di wax ndax leket am na lu muy représenté ca xadara ba moo tax boot bi Thierno Bachir bootoon sa jarbaatam bi Eh, symbole bi mooy maa ngi dem waaye dama yenu de su ma ñëwee ba yennee ko yen bi ma yenoon ñépp daañ ci xaj te nangu naa responsabilité man Bachiru kuy dem di jàngi gàddu responsabilité xam nga ni kiy ñeme na responsabilité ci la dem nag dëkk bu ñuy wax xoore man nag tur wi léeg-léeg waaw kañ xoore ñiiwa kañ léeg-léeg dama koy wax dafa am benn mbokk mu baax mu nekk ca France ne ma damay dégg nga naan xoore ñiibe ma ne mu ne ma du noonu de waaw kañ mooy Cheikh Omar Anne ma nuyuwaale ko xam naa mu ngi koy seetaan moo may gàggan ci baati tukulóor yi may wax te du jub waaw Cerno Cheikh Omar Anne mu nga ca Rennes ca France fa tabarakallahu ci la dem nag ca xoore ñiiwa fekk sëriñ bu mag waliyu bu mag nitu yàlla bu mag bu bari xam-xam daan jàngale funuun yépp ñi koy wax Cerno Amadou te ku xam Cerno Bachiru miin nga ci làmmiñam muy tudd Cerno Amadou fa la tasee woon fa la fekk nag Cerno Chérif Taal bii moom mii ca jamono yooyu la def ci Cerno Bachiru xasiida wone xilaafaam gii tey wane cër bi ko yaral làng tey kon maa ngi lay sàcc nag am na fu ma la sàcc te yëgoo ko mu ne urahibul basira bi sururi li annahu min qaadati l axyaari waaw kañ kon déggal na li ma wax kañ xaayaan ko dégg séeréer moo tax ma ne bu ñuy waxtaan ci suñu sëriñ si lii moo ci dàq xam nga tey mënoon naa wax rek ñu naan moo moom daa fekkee looloo gi nangam ak nangam waaye fi ma koy waxee moom dëggal na ko kon wax kañ preuve moo ci gën moom mii ca la defee xasida ci Cerno Bachiru te boobu mu ngay dem di jàngi mu def fa cinquante sept du noonu Cerno Cheikh Omar cinquante huit cinquante neuf soixante soixante et un soixante deux mu def fa juróom-ñaari at ah ba soixante trois 63 64 may ma tuuti rek koo ne fenal kañ dana fen ba nga doyal ngeen baal ma man kañ moom danaa leen fenal tey ba ngeen doyal waaw dinaa leen nettali ba ngeen doyal nahnu naqusu alayka ahsana alqasasi bima awxayna ilayka hada alquran waaw kañ kon boog nettali ma ne nettali nahnu naqusu alayka ahsanal qasasi yàllaa ko waxoon yonent bi waaye ana uqassisu lakum ahsanal qasasi bi lisaani jaddikum wa bi lisaani abikum wa bi lisaani abina Cerno Bachiru Muntaga daaxa Cheikh Umar du noonu kañ ba mu ñëw xam nga lu ko taxoon na ñëw haddaaye yu mu doon dajaleel sëriñam pour seddal xolam mu ñëw dajale as ay haddaayaa yi mu am teraanga yi mu am li ko yàlla wërsëgal hmm? li ko yàlla wërsëgal mu dajale ca lam am àndaat ak jarbaatam bi delluwaat ñooro teral sëriñam sëriñam door koo ñaanal mu ñëw ñëwal hmm? waaw kañ waaw bu ñëwee niñ daan def la ñuy def Eh, taalibe tiijaan nag yàllaa ko nattu waaye nattu bu rafet la nag koo xam ne waxtu wi dafa mel ni boo julliwul bi dat dañuy lem penku bi jógal ndànk nga dem julli ji rek bul fitnaal kenn ñun xam nañu heure te jàkka ja weesu na ñun suñ sëriñ la ñuy xaar bu ñëwee jiite ñu julli wala kum jox ndigal kooku jiite julli ñu julli lemaguñ penku bi te waxtu wi jeexagul leer na fii du jàkka waaw damay ñëw rek damay waxal ñi nga xam ne euh, yàq jotaay rek lañ mën waaw yàq jotaay rek lañ mën man xam naa li may wax bu baax wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraauuna naasa wala yazkuruuna allaha euh, yuraauuna naasa ah wala yazkuruuna laha illa qalilan muzabzabiina bayna zalika la ila haulaai wala ila haulaai wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna naasa wala yazkuruuna allaha illa qalilan muzabzabiina bayna zalika laa ila haulaay wala ila haulaay am na ñoo xam ne fu mbooloo jotee rek dañuy wane ne ñoom jullikat lañ waa bu la neexee julli jil te bàyyi ñu ci jàmm rek jógal ndànk bul ne kenn julli jot na xam nga ne julli jot na jógal nga julli ji ñun daa ñuy julli penku bi lemaguñ ko waxtu wi paasewul kilifa yi fi toog xam nañu waxtu te ñu gën a ragal yàlla fuuf ku fi jaay ragal yàlla rek ñii sant taala la gën a ragal yàlla ndax seen maam dong nga fi jihaat ñun ñëpp suñu maam yi dañ doon nelaw di lekk muuraaki ah nañ waxante ñun ñëpp suñu maam yi dañ doon nelaw di lekk muuraaki di taal cuuraay muy gilli ñu naan astaghfirullah astaghfirullah maam seen maam dong nga fi gàddu jaasi yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi xaqan fi tawrati wal injili yaamuruuna bil maarufi wa yanhahum anil munkari man lu ma la wax rek mën naa la ci tegal preuve waaw ñii seen maam jihaad te man nangu ci làmmiñu Alaaji Abdul Aziz mu ne Cheikh El Hadj lu jihaad tàng tàng tàng bu waxtu wi jotee day balaa julli dana ubbi laxdari lël yiraat baabu sax wi dana ubbi laxdari mu ne ak xam-xamam bu rëy ba balaa julli waxtu yépp balaa julli dana ubbi laxdari yër baabu sax wi cëj ko door a kabaar julli mu ne ba am bés ñu laaj ko ne ko taal lii lu tax mu ne bañ seytaane jekku ma ndax fonk julli xanaa nekk ci jihaad rek day na waaye nekk ci jihaad di xalaat julli di yër baabu sax wi kooku nag ëpp na ñooñu nag seen maama toog nii ku fi nekk julli kaata rek wa ardullahi waasia génnal nga julli ñun Cerno Bachiru la ñuy xaar bu ñëwee ñu julli kum jox ndigal kooku jiite ñu julli ma dem waaw li sa tur sa soppe ba daama borom daal yi ma demam kañ 1963 64 mu dellusiwaat Louga dara indiwu ko woon lu dul dajale teraanga jum mën a seralee xol ki ko doon jàngal muy Cerno Amadou xoolal boobu xalaat bari na koo xam ne bu jàngee ba ñibbi day ñaan yàlla sax sëriñ ba dee moom waaye du fa jaaraat mukk ñu baal ma la naari gànnaar ba waxoon ba moromam yi di jàng jàngut mu nekk ca bitig ba di jaay ba daanu ab shérif la nag boole ci mu jékki-jékki rek jël kaala bu rëy kaala ba muur gémmiñ gi ñëw fële ca boori paal dëkk ñoom bàyyi rawaan ngom dëkk bu ñu ak kel ñëw fa wàcc ca gaar ba ñu ne shérif ñëw na gaa yi di rang am benn waay bu ko xamoon ca bitig ba mu doon jaay ca Louga mu ñëw ba jub ko mu ne ko wallaay la ko ku ma xamoon démb yal na dee ku ma xamoon démb rek yal na dee ma ah xam naa démb jaba moo rafetul moo <laughs> tax waaye ku nekk ci lu rafet waaw waaw waaw dëgg la dëgg la sàll jërë jërëjëf jërëjëf ñu bàyyi la nga daw mu ne dafa am benn jotaay bu mu bëgg a dam fekkee ji ko te waxtu waa ngi daw te bëggoon na toog fekkee jotaay bi ba mu jeex fekkee nga yëpp ñoo la wuutu nga yóbbaale ñu jërëjëf sàll jërëjëf imam yàlla def aw kañ da yeesali njàpp ñëwaat yóbbu leen ko Cerno Bachiru 1963 64 mu del siwaat Louga ngir la ngir dajale hadaaya yu mën a tegi ci loxol sëriñam pour am ngërëmam ndax nit bu la jàngalee ñaar daf ciy xew mën na la gërëm gërëmuk biti waaye xol ba mën na des ndax du ñàkk xëy na gàkk-gàkk yu am sa digganteeg moom xam nga jàngal nit dafa diis mu yëg ne kon am na lu ko war digganteem ak sëriñam mu gàdduwaat cerno papa cerno Cheikh Umar bii ba indiwaat ko moo ko moo ko dalal alif baa ca foofa ca ñooro ñooro bale ca Mali xoora ñiima astafirlaa dama jum xoora ñiiwa waaw kañ dootuma ko fàtte xoora ñiiwa wa waaw kañ moo ko dalal alif ba ca xoora ñiiwa waaw kañ dëkk boobu ñuy wax bopp ñey kon nag ñay juddoo na fa ñay màggee na fa ñay jógee na fa taal na àddina fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin Cerno Jaw soow bii moom it bokk na ci ñi ma doon laaj lu bari ci Cerno Bachir waaye ku màndu la ci la door a xam li tax Cerno Bachir teg ko ci wetam bi mu ma nettalee nett ba mu yàgg mu ne ma ah am na ci loo xam ne daal boo ko bëggee xam dëgg dëgg dëgg laajal Cerno Cheikhu Umar Ba wala nga laaj Cerno Chérif taal ku maandu la te bari na ko jege sëriñ bi la sëñ Fallou Mbacke waxoon mu ne ah man de léeg-léeg ñu dégg ma dégg ñu nettali ci loo loo xam ne ci man damay téye sama gémmiñ mu ne waaye njaboot a koy wax doo ca mën dara waaye dalu ko moom Thierno jaw Sow bii toog ba mu jógee 1963 64 la indiwaat nag Thierno fii dajale hadaaya yóbbul sëriñam sëriñam ñaanal ko yàlla nag yeewee ko. ba muy ñëw nag am na dëkk yu bari yum jaar ñooroog yépp jaar na fa am taalibe yu ko bëggoon topp seetal stratégie bi ko yàlla may am taalibe yu ko bëgg a topp mu ne leen ñaar a tax mënuma leen yóbbaale dama géej lu nga xaw ma lu fa xew te su ma demee ànd ak mbooloo mën naa leen a lor te daara ja xamatuma nu mu tëddee ndax géej naa fa kon nag da ngeen may may ba ma dem ba xam lu fa xew su ko defee nag bu boobaa ngeen door a ñëw waaye bu doon tey jii sama kalaas gii nga topp leen dañ naan am naa taalibe aca bismillah ar njaxeen du noonu waaw kaay ñu dem moom kañ taalibe lañ lay def ci saa si bëgg taalibe rek am na ñoo xam ne fu ñu jëm sax ñetti nit ak leen daan eh, eh, eh, yu kenn xamul moom mosu ko sopp ngeen baal maa xam nag ci wax bi mosu ko bëgg bi mu ñibbisee nag toog la bàyyam waxoon ba mu ganee àddina ñëwaat na ci la naaru gànnaar yi commencé di ñëw ci kër ga ñii di jàng si ñii di ko seet si ndax wëllëre wuñ amoon ak moom ca gànnaar ba muy jàng fu ne waay jógee di ñëw di ko fa fekk si mu yor daara ja di jàngale lii ko yàlla may moo ko ñaq xam nga li Alaaji Abdou Aziz daan wax ne mag ñi li ñu am ñoo ko kaññe kaññe mooy ñoo ko ñaq gannaaw njureel gi bañ ko jëlee teg ko fële Cerno Bachiru dafa yëg ne Cerno Muntaga moo ma jur mooy sama way jur baax na waaye gënumaa bëgg mbaax mu sonn ci baax sonn ci lu baax sonn ci wër ku baax sonn ci ut lu baax lu ma bëgg ñu déggee ci ñun ndaw ñi buñ teel a toog yor kurus loolu rek laa bëgg ñu déggee ko ci ñun ndaw ñi teel na nga jékki-jékki rek yor sa kurus boof teel na ndaw lu jékki-jékki yor kurusam boof te kawaram ñuul te looloo xew ci jamono nag aleykum salaam Idrissa yow moom xam nga fi ngay duggee yàlla def ci mbaaxam xoolal ki booba ku mokkal alquran am xam-xam wóor mag ñépp delsiwaat Louga fekk ay magam ñépp a ngi toog boobu ñii seen way jur a ngi fi cerno Cheikh Umar aleyka salaam Idrissa xaaji Idrissa Makka daa métti boobu ñii seen jur a ngi fi doon wali yu bu mag boo xam ne kenn ñemewu ko moom lañ doon wax ne mooy gaynde kër gi kenn ñemewu lum mës a wax yàlla yàlla defal ko ko ci saa si lu mës a bëgg digganteem ak boromam muy Cerno Cheikh Umar yàlla defal ko ko ni ko bëggee Cerno Bachiru ñëw fekk ko fi fekk fi ay magam daanaka mu gën cee féete ndaw waaye yegg si jël xam-xam ba ko yàlla jox ak daraja jam jële ci àll bi ñëw yépp mu jël yépp soppi ko basan lal ko toogul de dafa tëdd ne ay magam jël leen seen tànk yi teg ci seen ci sama kow bopp di jaayu yor daara ji di jàngale lu magam yi soxla mu def ci itte taxaw ca lu ca war a faju faju mu delluwaat reculer toog ca gannaaw mel ni defut dara te fekk lépp moo ko def man de fekkee naa kenn nettaliwuma caar yaakaar naa sax boobu mooy dernière laylatul xadri bu Cerno Abibu ñëw kenn nettaliwuma maa ngi toog mu ne ñun ñii ba ci man tey mii man man Abibu xam ngeen ko ca fit wa xam ngeen ko ca xam-xam ba xam yàlla ga mu ne xam ngeen ne man abi bu ragaluma dara yéen ñépp xam ngeen ne Basiiru mii ñi gën a féete ndaw ci kër gi ci la bopp waaye maa ngi leen ciy gëñal ci yàlla ne ku diisoowul ak moom loo bëgg ci kër gi doo ko am maa ngi toog kenn nettaliwu ma Cerno Basiiru lii mu am mu ngi ko jëlee ci way jur wu baax de ndey ak baay waaye moo ko kaññeel boppam nag jël laxasaay takk ci ndiggam tarbiyu ay magam yépp dalee ci cerno Cheikh Umar cerno Cheikh Ahmad yi cerno Cheikh Umar cerno Makki wàcc di wàcc ba ci cerno Abib ba ci cerno Aqibu bii fi nekk tey di rakkam sax ku ci nekk tarbiyu na la ngir am ngërmaande ci yow loolu teel a xam boppam moo tax yàlla di def fi ma ciy potoxlu digganteem ak alxaaji Cerno du Nooru loolu moom Cerno Bachiru moo moom ko nett ci gémmiñam mu ne bi ma yoree daara ji di jàngale waaw waaw mu ne bi ma yoree daara ji di jàngale ca bismillah mu ne Cerno Abdullahi Lamin Nuuru Taal Nuuru Cheikh Umar Taal bi ma fi doon wax léegi doon ko nuyu mu ne dafa am lu mu bëgg a wax man la bëgg ma jottalil ko ko su ko waxul tey bu bu génnoon àddina sax du tàlli carno mu ne mu ne Cerno Basiiru mii ñuy waxtaane taxawaayam ci Cheikh Umar ak taxawaayam ci liggéeyal njabootu Cheikh Umar dem Mali daaw daawaati mu ne bi ñu doon dem Mali daaw daawaati jéeg dafa ko wax ne il faut mu ànd ak moom daf ko ne yow mii fokk nga ànd ak man ñu ànd ñu ànd mu ne bi ñu demee Mali ñu jël doomu lamin Bachiru ca Mali bu tudd Karamoxo tey jii mooy xalifa ba mu ne ñun ñépp ñu ànd dem fekk ñu ngi ko doon wax muuña foofu la Cerno Saydu Nuuru ganee àddina mu ne nañ fa dem ñu seeti barab ba ziyaare waale barab ba mu ne bañ demee moom Cerno Abdoulaye mu ne ko fii la Cerno Saydu Nuuru juddoo dañ ko defoon benn miir bu ndaw ñu bàyyi ko noonu mu ne bu Cerno Basiiru ñëwee mu ne ko lii fu bërëb bu nitu yàlla juddoo soo ko teralul doo am teraanga yàlla kon fii dañ ko war a defaraat tabax ko ba mu baax ba mu rafet nit yi di ñëw di ci ziyaara mu ne boobu nag ñu ngi ànd ak njabootu xamme ñang ku tudd Seydou Nourou turandoom ku tudd Seydou Nourou turandoom turandoo Cerno Seydou Nourou la mu ne Cerno Bachiru fii maa koy tabax boobu fekk am na ñu joxe woon ay millions fekk am na ñu joxe woon ay millions ñu mel ni ñoom Abdoulaye Niang ñu mel ni ñoom Abdoulaye Niang xaritu Cerno euh, Taal bii la moo waxoon ne dafa koy tabax waaye bi Cerno Basiru ñëwee ba toog turandoom bi mu ne fii moom man mii di turandoo Cerno Saydu Nuuru maa koy tabax ku ci defoon xaalisam na jëlaat xaalisam mais Thierno ak euh, mbaaxam ak euh, euh, am kóllëre mu ne waaye Thierno mbaaxam ak am kóllëreem mu ne xaalis bu kooku mu ne xaalis bi kooku joxe woon jox naa la ko Seydou jox naa la ko yow Thierno Seydou nga dimbali nga dimbandikoo ko tey foofu soo fa tey mu ne boo barab booba Thierno Seydou Nourou ganee àddina soo fa demee da fa te fekk tabax bu rëy saal bu mag saal bu mag ñu def ci lépp ñu def ci lépp ci ay toilette def ci lu nit di aajowoo rek kuy ñëw foofu di ziyaare looy aajowoo rek Cerno Bachiru def na ko foofu eh, mu ne fi Cerno Saidu Nuuru ibnu Nuuru ibnu Cheikh Alxaaji Omar tegee bëtam ci àddina fi mu ganee àddina mu def ko veer mu def ko comme veer yooyu nga xam ne day transparence day am transparence bi rafet veer bu carré comme bu ñuy defal néew rek bu toll nii soo ñëwee place baa ngi foofa doo egg ci biir veer bi mooy dox sa digganteeg barab bi ndax su ko su ko defutoon mu ne loolu mënu ko woon a bañ a wax ci jotaay bu mel nii ñuy waxtaanee ku mel nii mu ne moom lim ma ciy dolli Cerno Bachiru Cerno Bachiru mu ne maa ngi wax digganteem ak moom ak Cerno Amadou Oumar Xoore diggante ceer diggante taalibe ak sëriñam mu ne diggante taalibe ak sëriñam Cerno Bachiru Cerno Bachiru ba tey ba tey mosul gis mosul gis boppam ci kanamu njabootu Cerno Amadou. ci kanamu njabootu Cerno Amadou. moom sëriñ la moom ne moom sëriñ la. taalibe rek taalibe rek. xam nañu ne. xam nañu ne. Cerno Amadou. su duggee fii ci senegal su duggee fii ci Sénégal ci dundam. Cerno Bachir lu mu amoon yépp ci taalibe. Cerno Bachir lu mën a am ci rek. ak ay nitam. ak ay nitam. ay otoom. ay otoom. ñépp dañuy gàddaayee Louga. ànd ak Cerno Amadou. ba Cerno Amadou bés bu muy dellu. ba Cerno Amadou bés bu muy dellu. xoori ñiiwa. kenn du nekk Louga. ñépp ci Cerno service yi Cerno Amadou la ñuy nekk bi mu dundee moom Cerno Amadou at bu jot dafay dem day dem ziyaara ji ko moom Cerno Bachiru mu continuer loolu mu continuer loolu ba Cerno Amadou génn àddina chaque année at bu jot su demul moom su demul moom Cerno dana yebal jerbaatam yii délégation bu mag ñu dem ñu dem ba foofa yóbbu hadaaya yi yóbbu ziyaaram mu ne ren jii moo ci mujj mu ne loolu mësul dog te du dog ba yowmal xiyaam mu ne kon euh, waaw kañ mu ne bu ñu yàkkamtee nekk sëriñ de kon fi ma doon wax baax na mu ne boo gisee sa sëriñ mu ngi def boppam taalibe toujours yow itam yow it fexeel nga nekk ndongo su ndaw ci kanam rek mu ne loolu rek la ci bëggoon a dolli jërëjëf ba su ko defee hmm. waaw cinq heures waaw waaw kañ dëgg la بشيرنا وارثه عن جده عمر وللإمامنا بشير فنادى هاشم عمر سعيد منور سعيد منور والمكان يجرح والهمر ما خفيا بشيرنا وارثه عن جده Chérif Ibrahima Aïdara surtout Seydina Mouhamad soppi da baaxu Maalik sa baay Ceerno Bachiru mooy xalifatul Mustafa al Muxtaar summa Abil Abbaas wal Gaali wal Faaruq muntasir تحقق الحلم وجود وإحسان لمختبر دواد أمة أبصار له تدور وإن عيت مشيرا في محاسنه تكنه حاتما أو عادلا مدر يحمل من مكة البشير متقالا حاشي عمر أبدا رب العالمين fa tabarakallahu jërëjëf idi xaaji idrissa jërëjëf cerno cheikh oumar ba jërëjëf cerno abdalaay ah dolli ngeen ñu waaye li cerno cheikh oumar daanele fa lay moo di cerno bashiru mosul gis ne sëriñ la ba fii ñu toog di waxtaanee ay mbiram taalibe la def boppam loolu àddina bi yépp sedd nañ wootewul dara kuy woote it niruwu yàlla def nee na bi ma ñëwee yor daara ji kooku moom moo ma ko nettali ci gémmiñam mu ne bàyyam alaaji Cerno Saidu Nuuru ne ko ci tarbiya digganteem ak moom mu ne bàyyi ma laa ji Cerno Saidu Nuuru ne ko Bachiru na def le premier ci weer wu jot na nga ñëw ziyaare si ma le quinze ci weer wu jot na nga ñëw ziyaare ma kon ñaari yoon ci weer wi Cerno Bachiroo nga Luga Cerno Saidu Nuuru ngi Dakar ndax dégg nañ li may wax kañ Cerno Bachiru nee na mosuma ko manqué may waaw بشير وارث جده Rasul tabaarakallaahu Cerno Papa Tall lañ ko doon dalalaatee ñu dawal ndax wax nañ ne kilifa gi mu ngi dugg si Dakar dugg si na Dakar sax muy Cerno Bachiru te ñun ñépp xam nañ ne bu yegsee rek kàddu yépp dañ koy tëral mooy yore kàddu gi moo yore programme bi moo yore lépp te dugg si na Dakar su ko defee ñu may ma Cerno Bachiru moo ma nettali lii may wax ci gémmiñam waaw ah, kañ aleyka salaam taal ñu ngi lay ziar bu baax taal taal taal taal Cheikh Ahmad Tija sa Cheikh Ishaqa bal maq eh, ñu ngi lay ziar bu baax def moom Cerno Saydu Nuuru wax ko loolu nee na bi mu ko ko waxee amul benn weer bu mu jëllal lu dul dem na ziyaara ji Cerno Saydu Nuuru waaw loolu moom loolu moom balaa ma koy wax fokk ñépp toog hmm? waaw waaye bu ñëwee rek hmm? moom lay niru de ka annahu huwa may leen rek ba xam ndox moom la bu dee moom la rek ngeen moom hmm. nu Bachir waaw acca bismillah yëkkati leen Allah